waaw xam nga Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi. Euh, teg na yónni na Bassirou Diomaye mais moom ci boppam ba léegi euh, mun na bokk ci si élection yi. ah ba léegi mun na bokk ci élection yi état bi waxul xam nga loi xam nga fi mu nekk nii amul benn condamnation définitive bu ne du bokk. mais contumace bi la ñu wax ne moo tax mënul bokk. donc xam nga con contumace bi. déjà il faut pas nous ramener dans dans dans ce, dans, dans parce que on s'en sort pas non essayer juste de indil leen. la bàyyi ngay wax loo tamit on peut apporter le contraire. non dafa nank rek xam euh, li ma wax rek maa ko wax. yu bëri nee nañu Ousmane Sonko jusqu'à présent il est éligible loolu rek lay hmm. beneen bi mooy Bassirou Diomaye mu ngi ci kaso bi. Hmm. moom aussi amul benn condamnation benn. Hmm. benn condamnation. donc mun na présenter mais maintenant inconvénient mooy bu fekkee dañ ko tëj ba bësu campagne jot ñu tëj ko ci kaso bi inconvénient bu mag lay doon def campagne. Hmm. mais yaakaar na ne Ousmane Sonko turam ak dayoom. da mën a def campagne ci ci ñooñu dañ mu def dañ ko mën a defal campagne. Hmm. donc foofu moom xëy na mun na am parce que gis nañ ne deuxième liste parrain parrain yi. Hmm. ñi nga xam ne ñoo nekkoon suppléant Euh, ci législative bi ñoo gagné presque euh, presque cinquante pour cent. des électeurs. donc loolu moom euh, mun na nekk loo xam ne euh, mun nañ ko jàpp. Ah, waaw maanaam juge Sabassi Faye. Sabassi Faye waaw ah. man keroog maa ngi woon ci tribunal ba. à ah, Ziguinchor. non fii. Cour suprême Cour suprême li ma jàpp mooy. Euh, li nga xam ne moom la procureur général parce que procureur général moom moom mooy représenter ministère public maanaam mooy représenter état di représenter peuple sénégalais ci biir tribunal bi mm-hmm. moom euh, général mm-hmm. mu ne euh, huissier bi moom moo wax ne joxul Ousmane Sonko këyit bi wane ne dañ ko condamné huissier moo ko wax. parce que nee na ba mu demee di ko seeti hôpital dañ ko ne doo ko gis demal Sébikotane moom itam demul Sébikotane. ki nga xam ne mooy représenté état di représenté ministère public. mu ne puisque huissier bi moom moo avoué loolu donc waratuñu topp Ousmane Sonko parce que jotul kayit bi. Hmm. donc mu invalider li nga xam ne. moom la euh, waa agence judiciaire d'état di laaj mu ne nañu nañu Sabas Faye moo wax dëgg nañu jox Ousmane Sonko ay këyitam. Hmm. loolu moom moom man maa ko fekkee mu wax naa journaux yëpp nañ ko. Hmm. ba moo tax sax juge tribunal bi si loolu la sukkandiku pour euh, réintégrer Ousmane Sonko. non non non cour suprême dafa wax le contraire. Hmm. cour suprême dafa ne bon puisque juge bi. Euh, euh, jàppul ne euh, poste bi courrier bi ñu par la poste courrier boobu mën na doy pour mu ne Ousmane jot na ko donc nañu annuler jugement Sabassi Faye bi donc loolu muy loo xam ne dafa xel lool mooy li may wax léegi mooy ñu ñu ñu nekkoon ci tribunal bi jàpp nañ ne dëgg bi lii dëgg mooy lii avocat général bu wax ki nga xam ne moo koy représenté nguur am fit ne nguur ne agent judiciaire l'état amul dëgg man kooku laa jàpp moo am dëgg li tax xale bu jigéen bi ku ñuy wax euh, xaw ma nan jàllo jàllo ba moom signewul loolu firnde na en tout cas indi na euh, tey na xel yaakaar ne xëy na dafa d'accordul ak ñel liñ moo tax loolu yaakaar la rek mais ba léegi kenn xamul waaw xan waaw dañ yaakaar ne daf ci d'accord